yal na yàlla yokk jàmm ma ki bëgg a yàq da yëkkati ci imaan indi la ci logique bu la ca manee boo ñëwee daf lay daan waaw booy seetaan Barça ak nga seen Real bàyyi paas yu long di def yu gàtt tey la ko Barça di gagné ma la ko tey waaye bu kenn di def paasam yu gàtt kii def paas yam moom da koy mu sonal ko rek mooy football bu Sénégal xam nga kay footballuñ tey ndekete loolu mooy seen football ñoom ah yàlla na yàlla mu ne leen na man gisuma ci ndekki li fruit bu tudd xuld ñu ne ko lii loolu mu ne amu fi garab gu fi nekk goo xam ne wattu leen ko ñu ne ko ah waaw as garab la su ndaw su nekk fee mu ne mu ngoog mas ngeen ci lekk ñu mun a ko déedéet dañu ko tere loolu mooy iman dañu ko tere logique mooy lu tax ñu tere leen ko iman mooy àddina du ko tere de logique na ko mag mu toll ni yow ñu tere ko ak garab muy ndékki nekku fa te laajul ko ko tere loolu defoon naa ne sa xel weesu na ko logique mun na ko li li tax ñu tere la ko waxuñu la ko mais man soo ma ko laajee ma la ko imaan mooy laajuma la logique mooy nu mu demee imaan mooy laajuma logique nag mooy nu mu demee mu fexe bam ne ko nu mu demee maa ngi cosaanoon politique maa ngi ci maaraka faasila ca tàmbali ba maa ngi ci xew-xew bu rëy boobu te lépp di ca déparé mu ne ko gis nga garab gii kila la ko tere ci lay lekk mu na ko yàlla mu ne ko ci lay ndëkki te boo ci ndékki awa di ci ndékki fin de mois lu ko fi fekk ne ko ah mu ne ko waaw te garab gi dafa am ñaari njariñ benn bi mooy ku ci lekk doo dee bu ñaaral bi mooy ku ci lekk doo folliku mu ne ko kii kay lee tax mu tere ma ko jógoon ci imaan léegi ñëw nañ ci logique lu yàqu lu bari ci adduna foofu la yàqu léeg-léeg jigéen nekk ci sëyam moom jëkkëram kër gi neex laal ëmm kër gi neex laal buñ amee ceebu euh, keccax buñ amee ba pare xar bu rëy waxtaan wa jolli waaye menn màggatum yoor yoor moo fay ñëw jële ko ci iman dugal ko ci logique moo tax màggat yoor yoor yi ñu leen di julliloo jullig yoor yoor ndax duñu am taawu dem ci kër jàmbur yi waaw <laughs> ah, julli yoor yoor waaleykum salaam lu dëgg kon Eh, ñu daal di xëy fas yéene ndégg ca garab ga naka ñu seex sàq mi wanaasu la leen yàlla waxoon seen yére ne fër fër desetuñ dara la aadama wala xawa wa tafiqa yaxsifaani alayhima min waraqil janna ñu sangu garab ya pour fàq ca teg ci seen kaw garab guñ jub nga daw garab guñ jub rek nga daw ndeysaan ba ndeysaan fuddën ne leen fuddën ne leen man kaay leen fuddën moo leen recevoir may leen quelque xob la quelque car ñu teg ci seen kaw dooru yëg ne ñu def nañ erreur nga moo tax suñu borom bu nit di sëy mu may ko occasion fase juboo fasewaat juboo ay boo fasewaatee ah waaw ëmma ko buñ jubootul moo tooñ fase nga ñu juboo nga fasewaat ñu juboo suñu borom ne téyel teel kët waaye nga dem fasewaat te kat li ma ci métti Iran mooy bu waa ji fase une troisième fois ba noppi day wut solution encore waaw am na ci ku ma mas a fekk rajo dunia ma oustaz man de damaa fase sama jabar bon may laaj ba xam lu ci lislaam wax ma ne ko ñaata nga fase mu ne nim yàgg ma ne ah. fase naa ko benn yoon ma ne ko benn rek la waaye ne benn ni nim yàgg mu ne non deux deux ne waaye deux rek la mu téye naag ba mu nekk man ma yaakaar naa fa na trois ma ne ko lislaam ne na ko fase jabaram ñu defar mu fasewaat ñu defar bu fasewaatee na wuti jabar jabar ñu wuti jëkkër bu ca taseen bu leen neexee àndaat comme man ngeen dëkk ci fase ma ne ma ah bon waaw li wax ne ma est am na benn ustaas bu nekk fii ma ne ko am pagaay waaye seytaane xoolal fi mu jaar aadama ba gëmloo ko lim ko gëmloo lekkloo ko ca garab ga wa tafiqa yaxsifaani alayhimaa wa jann keroog xaalis am valeur nag ëmma mi waraxil jann xob yooya xob yooyu nga xam ne moom la fab teg ci kawam keroog la fo xob ya am bëlër ñu tudde ko tey bii biir moo tax moom mu man la la xob yooya manoon moom mu man ko waaye jëlal journal Sud Quotidien dem ci bitik ba lo xob bee man xob yi mënu ko li biyew di mu dimil man journal Sud Quotidien mënu ko kon mbir la keroog it la sunu borom ne fuddal mun naa ah, mun na ko dox nga kóllëre gu baax leen rek laa lay fay loxob jonga ma joo dugg bu tàllal leen teg ca laaj ko jonga may malheureusement léegi tatouage da koo ñëw yàq ko mm-hmm. fuddal mm-hmm. moom boo dee xaalee baax ah boo ko julliwaayee baax moom bu la neexee booy fuddanu ji te sa njëkk ne la doo dem nga ne ko dem dëgg ndax damay fuddanu ji te doo ci am bàkkaar fuddan beneen affaire la ba waajo romb yonent ba fuddan baaraam bi daf ne waaw góore waay keneen romb ko fuddan ñaar mu ne ko waaw góore waay ba troisième bi tax fu dëgg waaye daal lekk nañ ca garab ga la leen sunu borom gàdduloon sippi na ko inna laka allaa tajua fiiha sunu borom ne génn naa ci wala taara génn naa ci wa annaka laa tasmaw fiiha wala tadaxa génn naa ci daf na ko woon aljanna doo fi xiif doo fi rafle doo fi mar doo fi tëlibiti li feeg lekkoo ci garab gi léegi lekk na ca sunu borom déchargé wu ci ñeent yooyu léegi nag politicien bi xeeti politique yooyu ak yi ci des mooy nekk programme local ba assemblée ba palais ba mooy politique lu fi jëlee xiif xeetu politique la politique bi nu fi jëlee xiif xeetu politique yi boobu léeg-léeg moom màcc ñu jëm ci politique agricole nga xam ne ginnaaw alxuraan daa joxoñ ca tàmbali tudd xiif li ko fi mën a jëli mooy programme bu leer nañ programme boobu dara jiitu ci mbay mbay ëmma politique agri agricole bu jaar ci yoon cim réew moom rek moo mën a jële cim réew fi mu réew nekk su ko defee politique boobu bu ma demee ba ci kanam ba ñu toll ci dañuy tànn njiit walla euh, maire walla député dañuy bàyyi xel ci kooku bàyyi xel ci ñooñu parce que mbay sunu digganteeg Dakar sunu digganteeg Xombal sunu digganteeg Tiwaawan bu ñu amoon politique agricole ñun ñëpp nu nekki baykat wala ñu ëpp ci nekk ki baykat léegi tey ku xiif lekk te lekk li ngay bay wala consommer local defe naa lu ñu ko waxee dafa yombalu dund xam nga man mën naa ne benn élément la ci aar laa ci assemble bi néemaa gee élément la dibbutoon gee élément la lu dëkk léegi ñoo ñooñu ñooy jàppalante ma ak ñoom su ma bayee ci dëkk bi ñoom dañ ci participer soleil bi participer li may bay ñor ma for su fekkee suma biir dafa métti ñoom ñi ma bokkal assemblée bi ku ñëw mën a faj biir moo tax bu njëkk boo sojee rab day baxal am de boo xëyee dem boo njàmbataanee diggutoon day baxal bu su biir méttee wala amoo appétit nga xas-xasum ndimb ni ko ndaw ku ndaay defe di lekk amu appétit nga dem ci dimb ga xas ca lu tax parce que booba kenn benn élément la ci assemblée bi mais léegi nun élément la ci assemblée bi mais defutuñ consommé local li ñu lekk lépp dañ koy emporter moo tax boo feebaree li lay li lay faj dañ koy emporter ah way ñu dañuy bañ Iran dañuy bañ gisoon ni nu ni nu ni bi meree suñu cheikh moo ko doon wax de cheikh mu Tijaan si almaktoum nee na nature bi dañoo mere ñu ne ko lu xew mu ne ñu daan lekk ñam bi démb ak ñi koy lekk tey laaj leen ah ñam bi si am na jamono yoo xam ne lañ ko wax pulloox mooy buñ ko dugalee ci taal bi ba jikko ji soppeeku bu ci duggagul nag tudd ñaan bi na ma ndaw ko daa baal imaam xaal ji mas ngaa tojub xaal seex safu suukar léegi fukki xaal ngay toj benn lay saf suukar ba ca des xaw a saf way maamu ji ci puut fi nekk nii la ca la ca mu ëpp la ca neex lay tax nga lekk fa bu neex mooy nga am fa client rek mu lay tànnal sinon doo lekk benn mango bu neex ndax mango ñi dañoo mere ba demee boo demee Europe nag boo gisee mango buñ ñu def ci pot nag nga defee ne yaa way bay fii nga war na way bay mango jooju mooy mango ji fii sax lañ koy jëlee def ko na la ko def ko seen pot yi nga dem jaay la ko lu seer man fi ne ngeen baal ma su ma demee Espagne dama jëkk ba mil yu ma yëy gerte te ga gerte boobu fii la jógee ñu yóbbu ko foofa mais ba nañ koy saafee foofa moom daal tabarkàlla kon sunu borom ne ko fii doo fi xiif politique agricole mu ne ko doo fi rafle doo fi rafle artisanal jub mooy gars yi nga xam ne lu waay sol ñoo ko def ñoo ko ñoo ko ñëw ba ci dàll yi heure bii démb maa nga jaar ngaay bi di ñibbisi foo xool dàll la te kat bu ci ngaay bindoon made in Italia yëpp jàpp dañu complexe waaye bu mu ne ca made in ngaay meexe kenn du jënd fële bu ñu jëndee daal wu seer gi daal duñ toogee nii de nii la ñuy toogee am suñu tànk bi gàll ko ci bii pour gars gis dàll bi te dàll bi ko dàll bi étrange la ngeen baal ma nag yéen ñi waaye wax naa dëgg nag kon gis nga suñu borom ne ko doo fi xiif ne ko doo fi rafle bi mu ne ko doo fi rafle rek politique bee daal di juddu muy artisanal gis nga réew ko amoon te xam ko ëmm tuubal ko doxal ko yàlla xam na ne day jariñ gaaya jariñ waa ji jariñ gaaya ña koy defar jariñ waa tey loolu liñ ci mën a créer ci ay métier suñ ko sécuriser kenn xamu nu mu waaye malheureusement ah léegi nag léegi nag jëmale ñu xaar nii ah jege ko mu déy la <laughs> politique euh, artiste artisanal waaw daal di judd ñaari yëf judd bu ci nekk nag xeet la ci politique xam a koy def ci bopp akub yar ak orientation mu ne ko ñaari yëf waa naka laa tos mar mar ki ñàkk ndox a koy def ki naanut beneen politique juddu politique boobu juddu muy mbirum ndox ak laajoo ci ndox alayhi salaatu salaam def ne woon na ngeen fexe ba ñett bu leen ko privatiser ñett bu leen bëgg xaalis mukk ba privatiser ko almaau wal naaru wal kala wal kala àll bi ñuy def ay terrain na ko na nekk domaine national ku soxla mu yomb la dëkkuwaayu yomb am de mu ne ndox bu leen ko privatisé domaine national la moom leen ko yëg ñépp ñu ne waaw mu ne courant bu leen ko privatisé